ko. mooy ñun duñ état. daayira lañ daayira. association lañ suñuy propre moyen la ñuy def. donc su fekkoon ne ñun état fu ne dinañ fa dem créer fa benn bureau di fa fay ay salaire di fa fay ay location et cetera et cetera comme nag ñun dañoo baax rek bu ko dimbale askan wi. Mm-hmm. fay ñu dara. Mm-hmm. ñu gis ne. comme niñ ko proposé ñoom léegi. xëy na léegi-léegi mu métti ci ñenn ñi pour ñu déplacer. Mhm. ñu ne na état taxawal kuréel. Mhm. comme état moo ko war a lijjanti ñun dañoo baax rek dugg ci. moo tax ñu ne nañ créer observatoire buñ ñu créer observatoire mu nekk loo xam ne état la. Mhm. su boobaa état dina génne budget ñu defar ay bureau si Eh, zone gox yi pour que nit ñi dem foofu yomb. d'accord dina am it numéro vert boo xamante ni war ngeen exactement mhm. parce que xam nga numéro ver soo su la nit ki ooree yow yaay fay. Mhm. donc day laa budget. Mhm. ñun amuñ budget boobu moo tax ñu ne nañ taxawal kuréel goo xam ne. comme état moo war a lijjanti location. comme état daf ko jox ministère des finances ñooñu nëbbatu parce que ñoom ñu ci bari ay bailleur lañ. moo tax ñu nëbbatu. Euh, kii magistrat yi ñu ci bari ay bailleur lañ moo tax léegi-léegi dañuy sax àtte loo xam ne jaaduwut. léegi nag ñu ne ñu noonu ñëpp comme defuñ seen liggéey normal nañ jël benn kuréel tuddee ko observatoire. boo xam ne moom kon kon defe naa suba midi ngoon. waaw location bu bu cher kon euh, état bi mooy complice bi. mais bien sûr wax naa la ko dama la expliquer wàññi wàññi wàññi loyer président kese moo ci d'accord ñi ci des ñëpp dañoo croiser les bras nit ñi mel ni nekkuñ fi ndax loi la boo xam ne dañ ko voté assemblée opposition comme pouvoir ñëpp voté ko kenn yëkkatiwut loxo ne abstention waxuma la nag contre léegi nag suñ ko voté dañ ko war a appliqué benn fonctionnaire xam nga amul sañ-sañ taxaw ne duma ko appliqué mais li ñuy def mooy dañuy mel ni du ñoom ndax ministère des finances direction des domaines moom mooy yore li nga xam ne moom mooy mbirum location. mais kon mais kon gouvernement bi amuñu yërmande ci askan wi ndax bu ñu amoon yërmande ci askan wi dinañ leen yombalal location moom moom laa lay expliquer. Mm. président moo ne nañ wàññi bam ne nañ wàññi Sénégal ñëpp dañ ne wàññi mënut a nekk. Mm-hmm. ndax boobu ñun wax nañ ko nu ñuy def pour wàññi ak yooyu yëpp gars yi dañ ne woon seen commission bi sax wàññi du am ndax nag booy xool. Mm. réew moo gis ña fa ëpp doole. ñoom moom kër yi di ko luwe. déggoo li ma la wax mais num président moo ne nañ wàññi. ñi ci des ñëpp dañoo waaf. parce que ñu xoolee 2014. loi loi bi ñu tegoon dafay échec. loi bu échec ba nasaxal la sax. bu doy waar sax non non bi sax échec. problème bi ci nekk mooy ñetti problème la benn bi mooy ki nga xam ne moom moom lañ teg lu normalul du kalaame. du kalaame du kalaame. Hmm. ñun xeex nañ ba gars yi wàññi location ñu ne borom cent mille wàññil nañ la 29000. mais am na ñoo xam ne dañ ne waa ji wàññi 5000 rek parce que garawul xam nga loolu ñoo ñooñu luñ ci jublu dañ doon muusaatu de. Mm. pour won waa ji ne ko ñun kat yoon lii la ñu jox waaye laajuñ la yu yoon wax comme nag ñun mun nañu am ay retard ci paiement bu ñu teg yoon wax ndax yoon dafa wax boo retardé benn mois rek am na droit commencé laa teg. procédure pour mun laa génnee ndax feyoo benn mois. est-ce que jotul kon ngeen. poñe ngeen poñe ñi nga xamante ñoo nekk ci bopp réew mi. moo tax ñu wax ba président ne nañ taxawal kuréel parce que wan nañ ko ne ko président ñi nga xam ne ñoo war a def liggéey bi defuñ ko. Mhm. il faut nga samp ñoo xam ne loolu rek la ñuy def. comprendre nga. Mhm. moo tax affaire observatoire looloo indi ñu ne nañ taxawal kuréel. d'accord léegi nag kuréel googu duñ amati lay. Mhm. ndax ñoom dañ leen di samp uniquement pour que ñu lijjanti location bi. comprendre nga. léegi nag ci loolu président nee na fii ak décembre nañ taxawal mbir mi na résultat yi génn. waaw wax na ko ministère du commerce ak ministère des finances yaakaar toog xaar moom laa lay expliquer mm. ministère de commerce ministère des finances ak ministère de l'habitat nee leen waxtaan leen rapidement mm. premier waxtaan bi sax ministère des finances dañoo daw ñëwuñ mm. te ñoom ñoom loi yi wax affaire location yëpp ministère des finance la ñu wax ne moom moo ko war a lijjanti. dëgg la ndax ñoo ci gën a saf. léegi nag mm-hmm. bu fekkee ñoom ñi ko war a lijjanti ay bailleur lañ. te ñoo wax ñoo bañ. dañuy mel ni existé wuñ. soo leen convoqué réunion du ñëw. Mm. su dara amee su coow amee sax doo leen dégg boo leen owoon ne leen nga interview sax duñ la tontu. duñ la tontu duñ la wax déet duñ la wax waaw. léegi su ko defee ñoom suñ waxee du kenn du mën a wax ne dañoo bañ. Mm. parce que taxawuñ ne dañoo bañ mais duñ ko def. loolu moo tax daal je pense que actuellement li nga xam ne moo ci nekk mm-hmm. mooy. na état bi def liggéeyam. Mhm. bon président wax na ko ministère yi. ñu ngi commencé réunion na nit ñi tamit di boole ji. na nit ñi di boole. di boole ji waaw na bailleur yi am yërmande. ndax ki am kër moo tane ki amul kër. Mhm. te tam sa aqulaay taala tam war nga koo seet. Mhm. bailleur yëpp meluñ noonu mais am na ci bailleur yoo xam ne. oh dañoo ñeme yàlla. garaaw nañ. dañoo ñeme yàlla. defe ni dee amul te dee am na nag. waaw waaw defe naa ni nit ki moom si sa alal rek nga mën a dimbalee doomu aadama. waaw am na nag bailleur yu baax a baax yoo xam ne